bismillaahi rahmaani rahim bokki murit yi ñu ngi leen di nuyu turu sëriñ Amsatu Mbakke di leen ndokkeel ci liggéey bu rëy bii ñu fanaane bii yendoo ko tey mu mel ne sëriñ Amsatu Mbakke da ko woote ci yëg-yëg bu mu am diggam ak sëriñ Tuubaa xam ne sant sëriñ bi war na te lenn luñ mën a sant sëriñ Tuubaa cant ga yelloog moom lu dul xasaay itam yu tedd yii loolu amut te firnde ji mooy xaside gi sëriñ Basiiru di feeñal nii sëriñ Amsatu mbakke xalaat ne déggoon na ci waajuram Cheikh Abdul Xaadir mu wax ne moom day yoon wi jàmbaar amu ci ku ñu dimbale rek a fi am waaye kenn koo xam ne li nga am ci sëriñ bi sag njàmbaar la ko may amut ndimbalal sëriñ bi rek lu waaye am la ko may gannaaw ñooñe ñoo dul jàmbaar rek astonoon sëriñ am sa ne nañ dem ci buntu ndimbalam toog fa ndimbalal sëriñ Tuubaa nag ku ko dàkk ci xasidaam gi ñuy wax wa kaana haqqan alayna nasrul mumina di nga taseeg moom sëriñ am satu xool wa kaana haqqan alayna nasrul muminina muy ñaar fukki araf ak ñeent mu ne araf wu ne nañ ko def muy waxtu woo xam ne day fees dell xasida bu waxtoo jàllee ñu sës ci morom ja ba ñaar fukki waxtu yi ak ñeent mat ñu jébbal ko Sëriñ Tuubaa tey sàkku ndimbalam mu ne buñ yeggee ci loola nu bàyyi suñ bopp ak sëriñ waaye sëriñ bi ndimbalam lu gaaw li ak yërmandeem ju réy ji daa dikkal boppam Sëriñ Tuubaa ngi nii doog bi liggéey bi rek la Sëriñ Tuubaa yegg si kon sëriñ am sa nee liggéey bépp dañ koy jëbbalaat borom xam na ne ak cant war na bu baax a baax ci ñi fi fanaan biig di jàngkati rajiskat yi ak cant war na ci kuréel kat yi nga xam ne ñoo fi yendoo kuréel di sëriñ xaadim Fall ak ñi mu ànd ak cant war na ci mbooleem duruskati xaside yi waaye ne cant yooyu yëpp lépp na leen ko ndax borom liggéey baa ngi dañ koy jëgbal liggéey bi moom sëriñ bi fu mu ko jëmee rek foofee la waaye duñ yem ci jëbbal ko libbéey gi dañuy tàbbal suñu dëbb yépp ci biir liggéey bi jëbbal ko lépp mbàkke noo ngi nii amuñu tànn amuñu jañ amuñu ñoj lépp a ngi sa loxo foo lu jëmee rek foofa la loolu tànnal doy noonu ndax lu naqari waay ci boppam la mu tànnal boppam moo ko teg waaye ku bàyyi sa bopp sëriñ bi sa mbir jub àddina jub àlaxira sunu lépp a ngoog waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. sëñ am sëñ ne mi ngi fàttali yalwaanam ji sëñ Muntaxa ñëpp fasale ko ci jotaay mu yàgg fi te gën kon ñu jébbal sëriñ bi kàddu gi ak lépp rek di ko déglu ci lépp. barkeb sëriñ Tuuba. asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. seen mbokkum taalibe seen mbokkum jullit moo leen di nuyu yéen te di leen siyaara ngir jëmmi sëriñ Tuuba di am mbégte mu rëy moo xam ne nee bariwut lu ma koy am waaye tey jii de am naa ko ndax lii ma fekk fii nee sama mbégte rek laa fekk sëriñ Tuuba dongit laa fekk sëriñ Tuuba laa fi gis xawma leneen seenuma leneen nit sëriñ bi rek kon nag maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci turu seex muntaxa yàlla na fi yàgg lool te wér ci barkeeb sëriñ Touba lim naa la liggéeyal sëriñ Touba lépp na lépp yegg bam mu tàmbali waat yeneen te yeggale ko tàmbali yeneen te yeggale ko te lépp ñu ànd ko ci barkeeb sëriñ Touba di leen nuyu ñeen ñëpp Durus xalifa Cheikh Mamadou Aad suñu jàllalee nuyoo Sëriñ Muntaxa jox ñooña si ab nuyoom kon nag mi ngi nuyu ñëpp di leen nuyu turu jawriñam nag Cheikh Mamadou moom Cheikh Mamadou Fadal ak Serigne Abdoul moom Cheikh Mamadou Fadal mi yore kàddu gi ak njabootu Serigne Falilou gépp nee nuyoo boobu itam nee ñu ngi koy jaarale ci sëriñ seex ahmadu mbakke muy xalifab sëriñ Sohaybu mi fi nekk ak mbooleem njabootug seex Sohaybu gépp te di leen ñaanal yàgg fi lool te wér ci barkeb sëriñ Touba di nuyu sama doomi sëriñ muy sëriñ Xamsatu Mbàkke mii di murit saadex ne lii ma wax yàlla rek laa ko seereel ak jëmmi Serigne Touba ne waxuma ko ngir jaay ko de waxuma ko it ngir wut lu ko neex ndax man weesu naa fa may jaay nit kon nag moom maa ngi leen di xamal ne murid saadex la jërëjëf Serigne Amsatou Mbacké dégg naa mun taxa daaw jéeg mu naan la Serigne Amsa fasaale ñu fasaale ñu. pas-pas boobu rek nga doon def léegi bi ñu jullee ba noppi fasaale ñu ginnaaw sëriñ Muntaxa nag mooy sëriñ Touba moo wax ci làmmiñam ne fasaale nu waay waay kon sëñ am sa am nañ ci yow yaakaar bu baax yal na yàlla dëggal yaakaar jooju te dëral ndax li nga xam ne moom nga woote fii soo demoon ba ca digg manding ma nga wootee fa sëriñ Touba lii itam ñëpp fekk la fa ba mel nii ndax sëriñ bi moom lim bëgg lim li li ñu war a bëgg lépp yàlla may na ko moo ne ku ne kon ko ànd ak moom warulaa tiit warulaa jàq warulaa jaaxle nu na suñ xel yi dal nun ñëpp na suñ xol yi sedd nun ñëpp ndax sëriñ Touba man de li ma indi fii tey jii sëriñ Touba rek la xaw ma woon ne sax danaa ñëw jotaay sëriñ Touba bii tey sëriñ Xaadim ñan mii di sama mag di sama lépp moom laa woo ci suba rek di wax ak moom dama laa yitte woo woon mu ne ma man kat damaa génn ma ne ko foo toll mu ne maa ngi ci wetu kër ma daaro ci daara yi sëriñ am satu dafee woote njàngum alxuraan ak xasida bu ñu fiy def nee na ma daal di bàyyi noona ma daal di woo sëriñ Basiiru Mbàkke mii di sunu doom wax ko ne ko ana sëriñ bi mu ne mu ngi fii ci daaram jii de ma ne ko fas naa yéene ñëw teew si fa ngir ak taalibeem aku bëggam sëriñ tuuba ak ku dogu ak waa ànd ak waa këram man dey man dey léeg-léeg ma toog ba yàgg <coughs> mu yónnee ma teraanga yoo xam ne yii fooguma ko sax woon kon nag loolu su ko dee def ci man kon war naa fu mu nekk man ak lu mu jamp-jamp rek ma fekki ko fa seereel mbooloo ma ma fay fekk ne leen kii maak moom ak ku nangu noo bokk fu nu jëm sëriñ Tuubaa rek amul teggi amul sel amul dellu amul dëpp amul dellu gannaaw sa yàlla yu jóob mii daaw laa déggi kàddoom ci wax ca kër sëriñ bi am sut mi ca Tuubaa ma ne kii dey faw wu ma xam wax joojee ci sëriñ Tuubaa dafa neex lool te dëggu te pësteefu malaa di wut ab numéro am daal koy woore ca saasa daal di ko ne yow di bëgg naa la bis ni ki tey nang ma seet mu ñëw sama kër seet si ma nee loolu yi lépp nag li sëriñ Tuubaa sëriñ Muntaxaa di wax rek du man du yéen sëriñ bi rek <laughs> nee ko ndax sëriñ Tuubaa nun day mënatuñ koo fay ndax moonu tànn boole ci boppam <laughs> manoon na fee ne ba jóge fi te duñu ko xam duñu ko gis duñu ko sax dégg waaye bëggal nu njariñ nag ñun moo tax mu xëccal nu boppam nun ba dugg bañ dugal ñu ci biiram lool nag ak cantam moom mënee su ko wutal ab dayo xanaa nekk ca rek dëkk ca ba bëggee wàccub liggéey nga ne ca rek loolu dong lañ man de waaye mu ñu leneen ndax teraanga yi mënu terale kenn mënu ko kuddul moom ndax ba muy tàmbali yoonam yii coono yam ca jànkoonteeloon ba muy jóg daawul nelaw guddeeg bëccëg di kër këree ko kurkuri rek di liggéeyal yàlla ak yonentam ba rasulullahi sallallahu alayhi moom dong la woon booba da wéetal yàlla nag bu baax ba mu gëm gëm lool bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wasallam lool wax ko loo xam ne it ku yàlla bind mosoo koo wax rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mu muy muy Serigne Touba moom yi rek nee loolu moom képp koo xam ne sab xol yàlla defu ca kañaan ne war ngaa mën a xam loola te nangu ko nag xasidaay Serigne Touba yii kenn xamul dayo bi te itteem yëpp yàlla ak bi rek ci la ko def ne ginnaaw nun yàlla baaxee nanu boole nu ci moom alhamdulilahi rabbil alamin kon Serigne Hamza a jërëjëfandi kat mooy baat boo xam ne kañu koy wax daa bàyyeegut la muy def bañ di ko wax te turu jëfe jërë jëfandi kenn du ko wax it ku jëfut faw nga jëf nag mbooloo mi seere ni yow mii li nga nga nekk dëgg la ci yow maag mbooloo mii fi teew népp nag ñoo àndandoo maase di la wax ne sëriñ am satu jërë jëfandi naganu fasaale rek saxaadatu daaray ni ak ngërëmul sëriñ Tuubaa ngërëmul sëriñ Touba ku ko am texe nga àddina ak alaxira kon yàlla na nu yàlla baaxee ngërëmul sëriñ Touba maa ngi ànd ak sëriñ Cheikh Colle Mbacke moom sëriñ Abdou Karim moom Cheikh Mamadou Fadal sama doom nee na bi muy ñëw rek la may leeralal naa ma sëriñ Amsatu mi nga jëm kat ndekete may sama xarit la naa ma ne ko ah man dama laa woon ci yoon yi rek waaye xaw woon ne sax sab xarit la mu ne loolee rek daal nay doon tawféex may muy ànd ak Serigne Bousso mii nga xam ne mooy waxee sama kaddu ak Moustapha Ndiaye sama jarbaat ak Ibrahima Ndiaye jëwriñ ci kër Serigne Abo Falilou ñu bokk Serigne maa ngi moom nun nag kon nag suñu am sëtu ñoo ngi nii ñëw nanu nun daal Mbàkke noo ngi nii dong noo ngi nii rek ñaanalal nag taalibe yii taalibe yii kat lu fi xew rek ñooma ndax nun mënu noo gor mënu noo bay mënu noo sàkket danoo toog rek fu nooy fu neex donga yi di fi ñëw dinu xëpp seen alal dinu sant dinu ñaanal yàlla loolu kenn xamut lu mu doon xanaa yow mi nga xam ne yow lañ jox kay xanaa yaa waroon a ñaan waaye ki la jox jëmmam ji boole kook alalam ji wëlbati ko di la ñaanal wëlbati ko jooy di ko dëggale la mu wax ngir jëm bi sëñ Tuubaa ne yow teew defoo dara ne loolu daal kenn xamut lan la lu may sëriñ bi rek nee loolu nag mooy li ëlëm gaay yi nga xam ne umpule nañ sëriñ bi loolu rek a leen jaaxal mu ne nag dañuy gën a umpule sëriñ bi rek waaye ñoo ñoo xam de ñun de sëriñ bi rek ci la ñuy dund ci àddina ci la ñuy faatu ci àlla dem àllaaxira ci la ñuy dekki nun daal loolu lañ am fulata ci lañ nekk bu dégluwuñ ca waxe kenn nag faliwuñ ca kenn nag sëriñ tubaa rek ginnaaw lépp loo bëgg wax ko sëriñ tubaa mi ngi ci loxol Serigne Touba la nga doon bëgg nee na kon booy bëgg looy bëgg leneen ak feneen jëratu ko lépp a ngi ci loxol sëriñ Touba te ñun rek a tax mu yor kon nag nan góorgóorlu sàmm sunu taalibe gii ba ñii fëkkee ban noo fëkk duñu këf sax ndax suñu bankee suñu jëmm yeeg suñu laaf yi nii kott ko rek waaye ku ñuy mën a pek keppar ñu ba këf ñu di ñu yóbbu fenn kenn du ko man kon nag maa ngi sant bu baax ci taxawaay bi suñu am sa di leen xamal ne sëriñ mun mii sëriñ Tuubaa moo nu ko fàggul andil nu dencaloon nu ko ndax kat lii mu nuy waxal ci sëriñ bi kenn mësu koo dégg te lépp lum ci wax mook alxuraan a ci yam day wax ne sëriñ Tuubaa malaayika yëbu ko mbindeef yëbu ab yonent yëbu ko waaw ma nag kon ku malaayika yëbul ab yonent yëbu la waaye nu leen doomu aadamay kese di yabeeti kon cey ku ko yab cey ku ko yab cey ku ko yab yërëm naa la wallahi la siim <laughs> mu dellu di waxaat ne sëriñ Touba amut kenn kenn ku yàlla bind ngay bindeef ku sëriñ Touba ñee ci boroomam amut mu ne loole it amut mu dellu di wax ne sëriñ Touba mag ña nekkoon ak ñoom yëkkati na seeni daraja bam dat darajay saxaaba ya àndoon ak rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam mais te mag ñooñee ñooñu mel ni ñun ñii nu ni koy itam fa mag ña nekkoon rek lañ jëm ñu itam amuñu feneen fuñ mën a jëm kon nit mu waxit ne ne waxi daanukat la waxi dëgg la ne suñ demoon ba yowmal xiyaam it yàlla nekk na le bi nekk na le sëñ tubaa nekk na man dama leen di weesu ñoom ñëpp ci sëñ tubaa rek laa jëm te dara mënu ma caatee yegg loolu sëñ mu taxaa ko ne loolu itam lu wér la mu ne kon nag nan ko sant yàlla góor-góorlu am pas-pas ci sëriñ bi di ko liggéeyal guddeeg bëccëg mu ne ci fan yi ci gannaaw gis na ci réseaux sociaux yi benn waay buy wax koo xam ne kii waa waajuram nee daa nelaw ca bu yàggoon nee mu gént guddi gis ko ne ko waaw sëñ bi waaw nu ngeen nekkee barsàq nag mu ne ko fii daal ñi ma fi gis ñu am jàmm mooy ñu doon liggéeyal sëriñ Tuubaa rek wallaahi la asimi la amee wallaahi la asimi noonu la amee suñ laxasaay yii buñ ko tekki mukk ba gis sëriñ bi rek ba bañ koy fekki rek ne am nañ tawféex sax ba noppi mu ne kon nag xanaa yàlla na tawféex di ko rek kon maa ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di bég ci yéen bu baax xam naa fii li ma fi fekk mën naa waat ci alxuraan ne sëriñ Tuubaa rek laa fi fekk wallaahi la sim dëgg la kilifa gu toll nii lu mu wax ba rago ñoom génn wér na wallaahi dëgg la sëriñ am sëtu taxawu nga sëriñ Tuubaa ci xasidam yi liggéeyal nga ko ci liggéey boo xam ne lu mu am ci la ko amee waaye na la wóor ne moom itam di gis na la gis na la amin gis na la amin gis na la